point net sene info international jërë ngeen jëf ñuy amaat mbégte ak contentement ba tey di leen dalalaat ci seen yor yoru sene info ma di ko amal ba tey rek asama naataango bi di Buur Siin Kumando Feeñu Juuf ma bàyyi ko mu nuyoo ñu daal di jàll ci xibaar yi waaw Assane maa ngi lay nuyu di la jaajëfal bu baax a baax di jaajëfal itam mbokku internet yi nga xam ne ñu ngi bàyyi xel saa su ne suñu différentes plateforme yi site beeg euh, chaîne YouTube bi page Facebook bi Instagram ak réseaux sociaux yi kon nag di leen euh, jaajëfalaat rek bu baax di am mbégte di bokk ak yéen plateau bu Yoor-Yooru SeneInfo. jërëjëf Buur Sine tey nag waxtaan bi ñu koy tënk si ñetti point bi si njëkk nag mooy li nga xamante ne nii dal na askanu turc ak Syrie mooy tremblement de terre bi nga xamante ne nii am na fa. ñu dal di jàll si Cheikh Anta Diop bi nga xamante ne nii moom tamit tey la 37e anniversaire. ñu jéemalee ko rek ak rapport Cour des comptes bi nga xamante ne nii am na lu ci bees bourse yi xam naa dañuy waxtaane euh, euh, tremblement de terre bi nga xamante ne nii moo am fële ca Turquie ak Syrie démb nag ñu ngi doon wax ci 4000 morts la tolloon waaye fi mu toll nii dernière information yi ñu jot bilan bi daal na di dépassé 5000 morts. waaw sama asal comme ni nga ko waxee eh, mbir la moo xam ne mu doy waar la kon fi nekk nii mën nañ ne àdduna moom mooy information bi ci gën a eh, rëy nekkit loo xam ne lu tiis la mu am foofale ca Turki ak eh, Syrie muy ñaari dëkk yooyu Turki nag booy xool ñoom ñoo ca gën a loru mbir mi nag kon mu ngi am guddi dimanche jàpp lundi kon ca la am muy séisme di ab suuf soo xam ne dafa yëngatu ba mu yëngatoo na xam ne ni mel bu amee eh, léegi bâtiment yi dañuy daanu jaxasoo ak yi ni mel eh, ba sax am nit yoo xam ne eh, dañuy nekk ci li xam ne moom mooy décombre yi maanaam loolu ñuy woowee bâtiment bu daanoo décombre yooyu yu am nañu jot a génn nag ñu bëri faatu nañ si comme ni nga ko waxee toll ci cinq mille personnes bëri na lool boo xool si ñaari si ñaari dëkk yi wante bu dee côté euh, Syrie rek euh, wala boobu Turquie nee am nañu toll ci trois mille quatre cent dix neuf personnes comme yoo xam ne ñu ne ñàkk nañ ca seen euh, bakkan loolu gis na loolu bu dee wàllum fi nga xam ne moom mooy Syrie ca nee nañ am nañu toll ci mille cinq cent neuf ci ay nit ñàkk seen bakkan xam nga it ba léegi benn nit bu dee rek ci anam yoo xam ne yooyu la day métti waxantuma laa nag lu bëri loolu ci ay nit ñu mm. faatu ci anam yooyu ngir gis la ngir mu métti euh, ci kaw loolu sax euh, ki nga xam ne moom mooy njiital réewu euh, Turquie di Recep Tayyip Erdogan amal na ab day national boo xam ne sept jour la kon amal na ko mm-hmm. foofule ca kiim ki ñuy xaarit li nga xam ne moom mooy ab ndimbal ndimbal boo xam ne aide internationale la kon ñoom ñu koy eh, xaarandi fi mu nekk nii kon ndax ñu jàppale leen xam na nag yu mel noonu bu amee ci réew mhm. dañuy soxla ndimbal ndax dañu métti trop dañu métti dañu nekk ci ay eh, jafe-jafe sauvetage yeeg ñeneen ñi nga xam ne eh, loolu tax na ba ñu ñàkk li ñu amoon ak yu am na réew yi commencé di yónnee sax ngir ñu jàppale leen ki si mel ni réewum Amérique. Hmm. ñu ngi yónnee foofu ay éléments yoo xamante ne nii dinañ leen jàppale soutenir leen bu baax a baax. ndax loolu tamit nekk na loolu te ñun ñoom dañ ko soxla. effectivement Ameth Gueye soo na ñeneen ak ñeneen. ñeneen ak ñeneen ñu ngi xaar ñu ngi xaar lu bëri ay yoo xam ne kon mhm. war na bàyyeekoo ci yeneen i réew ñu jàppale leen ca euh, nga xam ne moom mooy boobu leen xar ndax euh, euh, mhm. nekk ci jafe-jafe yooyu kon nag ñu ngi leen di.

effectivement comme ni nga waxee xam nga nag euh, coow loolu jur na coow lu bëri muy rapport Cour des comptes bi nga xam ne def nañ ko ci nañu yore woon koppar yi nga xam ne kon moom lañ jagleeloon lii di xeex jàngoro yi coronavirus euh, koppar yooyu nag bëriwoon lool ay milliards euh, loo xam ne. kon ay koppar la woon ñu nguuru Sénégal ak ay bon volonté euh, dajale woon loolu nag euh, gannaaw bi nga xam ne nag mbir mi weesu na Cour des comptes génne euh, ay rapport dañ cee gis nag ay doxalin yoo xam ne jaarul yoon dañoo jàpp ne jaarul yoon kon ba tax sax lii di Cour des comptes sàkku ñu ubbi ay information judiciaire ci ay responsable yoo xam ne kon daal yaakaar nañ ne laaj nañ euh, laaj nañ li nga xam ne moom mooy euh, mbir mi euh, boobaak léegi nag xam nga yoon moom ay mbiram daa xaw a yëf wante nag démb ki nga xam ne moom mooy procureur def na li nga xam ne kon mooy ab communiqué xam ne ne si kon dinañ jébbal mbir mi waa DIC ngir kon ñu amal ci ab ab ab ab enquête comme ni ko waxee ngir daal mën a xool képp koo xam ne daal na si ñu mën laa yóbbu ci yoon ñu ne sax dàqul ba ñi nga xam ne eh, ñoom lañ ca tudd ñu bañ a génn réew mi fii ak kon jëf euh, ji li nga xam ne moom mooy liggéeyam ah. wante nag dafa am eh, ñu gis ne euh, fi mu nekk nii comme que mbir mi Euh, feeñ na dañ cité ay ay euh, fee dañoo waroon dem directement li nga xam ne moom mooy instruction am na ñu leen bokk na ci ki nga xam ne moom mooy Demba euh, Seydi bokk ci collectif publier ce que vous payez nga xam ne sax moom moo leen représenté ci Afrique de l'Ouest fii moom dafa gis ne fu mu nekk nii daal mbir yi nekkaat di ubbi ay enquête ak yooyu di gis ci day gën a yéex kon dafa gisoon moom ñu dem directement ci instruction ngir mbir mi gën a gaaw ba tax na ko yaakaar ne kon daal affaire am na am na daal am na daal ci leeru waaye ñu cee bëgg a nëpp nëppal ba tax ko ñu nar ko jaaralewaat ci li nga xam ne moom mooy dikk euh, affaire yi nar a jëraat euh, procédure mhm. euh, affaire yi mel waaye nag ak lu ci mën di am rek jënd nañ ko dikk su nekk nii kon dañu xaarandi di def ci li nga xam ne moom mooy euh, liggéeyam dañu xam mhm. ba waaw wane ko mu jënd jëndam. ñu ñoo si Cheikh Anta Diop laataa ñuy jeexal première pàccu yor-yoru seen info ndaxte dina am deuxième partie bi waaye ba tey euh, si première partie bi dañ koy jeexalee ak Cheikh Anta Diop mi nga xamante ne nii euh, tey la anniversaire am ginnaaw bi mu làqoo woon le 7 février te lay def 37 euh, ans moom nag mu ngi juddu woon le 29 décembre 1923 génn àdduna le 7 euh, février 1986. waaw soxna Astel Cheikh Anta Diop euh, di xam ne figure la historique boo xam ne moom romb na frontière Sénégal romb na frontière Afrique mm-hmm. adduna. xam nañ ko adduna adduna adduna nga xam nañ ko taxawaay bi nga xam ne kon amoon na ko ak nag euh, li nga xam ne indi na ko ci wàllum euh, science euh, ak ci wàllum histoire li nga xam ne moom mooy Afrique nekk na koo xam ne yaakaar naa kenn dootu ko fàtte ah. yaakaar naa colloque Caire tax na ba daf koy joxande dimension international moom moom lay di Cheikh Anta Diop liggéey am solo yi nga xam ne def na ko ci histoire rawatina ci wàllum euh, Égypte jàngate yi nga xam ne amoon na ko Égyptologie yi ni ay découverte am wane ne li nga xam ne moom mooy race bu ñuul mooy jiitu bépp race antériorité civilisation ak yooyu wane ne race bu ñuul daal moo jiitu si mbooleem race taxaw itam def ci ay débat ak li nga xam ne ak ay tubaab lañ défendre li nga xam ne moom mooy euh, idéem Cheikh Anta Diop daal dafa nekk koo xam ne euh, soxna Astel ci la kuréel yi nga xam ne sax moom mooy jeunesse bu Afrique kon Cheikh Anta Diop ci kaw day exemple la koo xam ne ñu ku ñu war a ku ñu war la ku ñu war a topp la tey sax am na ñoo xam ne euh, ñu ngi euh, métitlu lan moo tax tey ay livre Cheikh Anta Diop ay œuvre ak yéni mel duñu ko dugal ci li nga xam ne moom mooy enseignement bu Sénégal comme tey li nga xam ne moom mooy ay jàngaleem ay livre yu bind ñu boole ci programme bi nga xam ne am na programme bu enseignement suñu réew suñu réew Sénégal wante nag euh, am na ñoo ne ay ndaw fonk nañ ko i nañ ko i fii ci Sénégal ak ci ci loolu sax am na benn collectif euh, bu ñuy woowee marche Dakar Teetu ñoo xam ne ñu gëm Cheikh Anta Diop lañ boo xool ñoom chaque année dañuy def benn marche boo xam ne euh, soxna Asel dañuy de fii euh, Dakar mhm. dox ba Teetu euh, nga xam ne waaw mooy dëkkam mu ngi nekk si département Bambey ah, si région de Diourbel mu ngi lax koo fii ci Dakar mhm. effectivement ci Teetu moom marche marche li ma déggee marche Dakar Teetu maanaam mu ngi ab ay collectif yoo xam ne kon ay jeunes africains lañ parce que dooy sénégalais kese dañ dañ ci fekk ay yu bëree bëri euh, bokk ci Afrique uh-huh. marche bi euh, chaque année dañ koy tàmbalee fi mu nekk ni sax euh, ma juumul war nañoo yegg foofule ca Ceytu yegg nañ ba yegg nañ ca Ceytu ndax dañuy déparé nga xam ne mooy université Anta Diop ma juumul le premier wala le deux février uh-huh. dinañ dox lu toll juróomi fan lu toll lu téeméer ak lu tegal ci ay kilomètres. dox Dakar ba li nga xam ne moom mooy Thiédou. Euh, mm-hmm. te lépp si biir yoon bi marché bi dañuy amal li nga xam ne moom mooy ay séance di waxtaan ñu ngi romb école yi dem si ay école waxtaan bi li nga xam ne moom mooy euh, élèves yi di mu nekk marché boo xam ne daal marché bu am solo la lépp rek ngir fësal. liggéey bi nga xam ne kii Cheikh Anta Diop euh, liggéey na ko wante itam gën koo xamale ak ndaw yi nga xam ne peut-être ñu ko woon ak euh, yi mel soxna Assane daal ngir wax la rek rek Cheikh Anta Diop nekk na figure boo xam ne euh, figure historique boo xam ne bu am solo la waaw tey gii ñuy màggal li nga xam ne kon mooy 37 ans bi mu léegi comme ni nga waxee soxna Assane waaw ba tey rek euh, euh, bu siim ñu di la jaajëfal si yaatal gi nga si yaatal euh, Cheikh Anta Diop moom lu ñu war a lu ñu mën a wax ci moom nekk na lu bëri ndaxte du ko xamante ne ni Sénégalais kese ñoo ko fonk mais dem na ba feneen boo demee bitim réew ko ci mel ni Amérique bu ñu saytoo bu baax am na ay nuyu yoo xamante ne nii sax tuddee nañ ko fa moom Cheikh Anta. waaw jërëjëf Boury Sine comme ni nga ko waxee rek Cheikh Anta moom dafa nekk koo xam ne lu ñu war a wax ci moom dafa bëri. parce que du au niveau national kese lañ ko xam mais boo demee si au niveau international ba ci Amérique sax da ngay gis am na ay rue yoo xamante ne nii dañ ko fa tuddee mu nekk nit koo xamante ne nii liggéey na fii loo xamante ne nii am na njëriñ trop. Seneinfo. ñu jàll si ñaareelu pàcc suñu yor-yoru Seneinfo di ko ànd ak kii di Dieng bu Pastef ñu bàyyi ko mu nuyoo ñu daal di si jàll pour si. Astel maa ngi lay nuyu di nuyu Bourchine di patriote bi ma àndal ñu koy wax mhm. di nuyu waa Sénégal yëpp maa ngi leen di nuyu di nuyu képp kuy patriote di Sénégal gale rek maa ngi lay nuyu. waaw euh, soxna Asel euh, di la jaajëfalaat di jaajëfalit euh, Dieng Pastef mi nga xam ne nangu na wuy si suñu invitation ak ki mu àndal it ñu ngi koy nuyu bu baax a baax waaw man de xam naa sama laaj bu njëkk rek ci li ma koy jëmale moom mooy seen militant yi nga xam ne. Euh, arrêté nañ leen euh, ñi euh, fële ca Diourbel ba ma juumul ñeneen ñi ñu nga xam ci kiiw Dakar bi la woon ñi sax jot nañ leen placé su mandat de de dépôt tey loolu ban jàngat ngeen jëf ak ban taxawaay. waaw léegi loolu moom ah Buur Sine biñ ko yëgee dañu am naqar ak metit mm-hmm. parce que ñun le ñu ñoo ngi woon ci la kër gi comme événement yi am rek. ñu daanaka dinañ bokk ci sénégalais yi du ma ne patriote yi parce que combat bi combat peuple bi la mhm. dinañ bokk ci sénégalais yi njëkk a dugg ci biir cité bi ñu mën a accompagner suñu leader président Ousmane mais biñ demee ba nga xamante ne bi le bi journée bi passé na le lendemain bi ñun suñu groupe bi nga xamante ne bi patriote yi ñun ñi nga xamante ne bi déggoo ñoo ngi waxtaan suñu biir dañoo am benn groupe les patriotes de pro noonu ci lañ ñun ci lañ xamee ne am na ay arrestation jour boobu noonu mm-hmm. waaw parce que ñun am na loo xamante ne bii maanaam su fekkente ne bii ay affaire du lacrymogène wala force de l'ordre bu ñu def ay check point ci biir cité bi wala ci biir kaw kaw VDN bi def ko ci biir dëkk bi yëpp président Ousmane Sonko saa bu amee rend bu rek da ngay gis ñu commencé génn seen check point. mais nga baal ma foofu est-ce que du yéen yéen a génn moo tax ñoom ñu génn parce que le deux bi seen président demul woon wuyu ji. Mhm. seen président demul ji moom mu ngi këram est-ce que déggoo nga ngi ax déggoo ngeen ak moom mu ne leen du wuyu ji comme ça yéen boo leen xamoon ne moom du wuyu ji man comprendre ma lan moo taxoon yéen ngeen génne. waaw loolu xam nga li ma bëgg foofu mooy gis nga ñun dañu nekk ay ñun dañu nekk ay sénégalais dëkk si dëkk bi. tey lu mu mënti am président Ousmane Sonko moo xam événement yi coalition yooyu Askan Wi lu mu mun mënti nekk comme événement président Ousmane Sonko militants yi ak sympathisants yi ak mhm. ñi nga xam ne ay 100 pour cent patriote la dañoo jàppoon ni le deux bi dina dem wuyu ci. kon déggoo wala ak moom. non du question ñàkk déggoo ak moom parce que avant le deux bi. Mhm. ñoo ngi def point de presse. ñoo ngi def point de presse. mercredi mardi mercredi jeudi ñu war a nekk le deux pour convocation bi léegi loolu nekk na loo xamante ne bi même su fekkente ne bi déggoo nañ ak euh, président Ousmane Sonko sax ñun man ak sama sama côté camp ñu bëri xamoon na ni président mu wuy ji parce que ñun dañoo yàgg a téye fi ñu téye na ko du la bàyyi ngay dem di wuy ji convocation yi ñàkk fayda depuis avant mitingu Kër Massar bi ba ci Maham Diallo bi mu jëlee dossier bi jox ko doyen jox ko mm-hmm. procureur pour ñu yóbbu dossier bi chambre criminelle boobu lañ commencé taxaw riposte ne président moomutoo sa bopp dëgg la yow yaay président yow yaay président yow yaay kii euh, président parti Pastef mm-hmm. mais dañ lay bëgg wax ne la loo nekk nekk nekk nekk nekk nekk nekk leader moomoo sa bopp. Mm-hmm. moom mooy euh, procès moom Mame Mbaye Niang est-ce que damay ñëwaat foofu est-ce que est-ce nga ne tam jaroon na peut-être mobilisation beeg génn boobu ak euh, li ci am yëpp euh, te yaa ngi naan euh, procès bu ñàkk fayda Mame Mbaye Niang dafa jàpp ne daf ko diffamé mu yóbbu ko ci yoon est-ce que it côté boobu mën nañ ne mën mën nañ mën nañ mën nañ ne lu ñàkk fayda la comme ni nga ko waxee non ñun suñu côté dañu jàpp ni convocation bi dafa ñàkk fayda parce que li tax ñun ñu xam ne lu ñàkk fayda la Mame Mbaye Niang ñaata yoon fi taxaw di diffamer président Ousmane Sonko fii ñaata militant Benno Bokk Yaakaar wala ay responsable Benno Bokk Yaakaar ñoo fi taxaw di diffamer président Ousmane Sonko hmm? amul ku amul mili amul euh, benn militant Benno Bokk Yaakaar bu taxaw ne président Sonko dañ ko war a rey mais est-ce que genre est-ce que tey procureur mu ngi est-ce que tey convoqué na leen tribunal pour laaj leen lii ngeen wax lan ma lan moo lan ban ban règlement de compte ngeen am. non non mais xanaa euh, buur président Ousmane Sonko li mu déposé si ay plainte si table procureur nit mënu ko wàññi avocat mi dem nan ba taay porte plainte déposé plainte mais amul benn dossier bu procureur Moussa. Euh, ubbi dossier yi autopsie non bëri na parce que buñ fi nekkee di ko lim non non parce que waaw cest dire waaw yéen boo yéen boobu rek ngeen mën di souligner yéen boobu ngeen mën di souligner di wax ci boobu parce que ah, waaw non non non mais xam nga yow ci média nga nekk président Ousmane Sonko tey bu fekkente ne bii nii nii nii plainte yi teg ci kaw table procureur moom ak ak ay avocat tey bu fekkoonte ne bi loolu intéressé na procureur di ngeen ci am liggéey bu doy waar parce que suba waa yéen ñëpp di ngeen ko titré di ci liggéey mais am na loo xamante ni bu amee entre citoyen ak citoyen Mame Mbaye Niang bërki dem bi muy dem tribunal bi muy dem tribunal mais dalay leer ne amul benn force de l'ordre bu def check point buntu këram ku ko gis na ma ko wax non xaaral ma expliqué leen xaaral xam nga luy problème président Ousmane Sonko dafa nekk nit koo xamante ne bi bu amee bu amee benn sénégalais dossier loolu entre sénégalais ak sénégalais mën nañ ko gérer xool yoon naka la koy doxalee mais président Ousmane Sonko saa bu amee événement wala convocation rek la fay nekk ci ay check point force de l'ordre ak waa élément bibi dafay dafay nekk loo xamante ne bi waaw dayoo nit ki la c'est-à-dire nit ki la mais lool nañ prévoir parce que état tam noonu lay doxee quoi état du bàyyi ba dara mu doo kii mais tey buñ ne c'est prévoir il faut ñu prévoir peut être génne dispositif ndax ndax ndax ndax ndax ndax ndax ay événement xam nga xew xewoon na fi ba maar détail loolu am fi mais tey it bu ñu convoqué du ñu toog peut di xaar ba dara xew ko mais dañuy jël dañuy jël les devant euh, def benn dispositif sécuritaire pour euh, bu dara xewee quoi. non man bëgguma dégg loolu gis nga lépp loo xamante ni biir dafa nekk programme politique Sénégal fii tey monsieur le maire Barthélémy Dias bu génnoon rek di def benn événement rek la ngay gis ci ay force de l'ordre yi ñuy génne teg leen dafay ëpp dafay ëpp ñaar nii moom dañu sonn trop ci réew mi monsieur le maire Barthélemy Diaz maire de Dakar ak président Ousmane Sonko ñoom ñaar lépp lu ñuy dugg rek avant le jour J can comme ñu ne suba la événement bi tey ci ngoon gi la ñuy commencé di circuler di def seen sécurité def ay checkpoint mel ni ñu nekk Ukraine mais voilà non parce que li ko waral mooy dëggu gin dëggu ak sénégalais yi cër bi ñu leen jox bëgg bi ñu leen bëgg tey ñoom dañuy bëgg bu ñu wootee nit ñi wuy si leen léegi nag loolu moom mooy déranger beneen camp bi état bi mënul supporter loolu te loolu mënul ñàkk si réew démocratie nekk d'habitude nit ñi bu ñu wuysee dañ dul yem rek si wuy si dañuy wuy si peut ba def loo xam ne day xaabaabal tax tax tax tax nag gars yi dem jël les pour prévoir. Euh, gis nga li nga wax nii ah, ah, li nga wax ni ah. li nga wax nii tey man am naa loo xamante ne bi tey gis nga lépp luy événement lu yeewi askan wi wala président Ousmane Sonko woote gis nga nit ñi lu ñuy bëri bëri bëri bëri dinañ ñëw wuyu si si jàmm feete suñu événement ci jàmm def lépp. ci solidarité jàppante ànd te dank bu dëgër des fois da ngay gis sax dangay gis sax waxuma la sax jeune da ngay gis koo xamante ne da lay leer ne kii kilifa la mag la mag la moom mooy téye sachet nii di wër di wër ci biir nit ñi di ramasser mbalit yi bu fekkente ne bi journaliste yi dem sur le terrain ci événement bu amee ñoom mën nañ mën nañ témoin loolu kon ñun bu ñu bu ñu wooyee ñu ne mu ji kon gisuma loo xamante ne dina jar ay force de l'ordre fii wala ñu génn waa bi ak seen oto yi fii di tiital sénégalais te ñun dañoo xas ba engagé wu. tey bu ñu indi woon armée France sax armée français yi ñu indi leen teg leen sax ñun gëm naa ne ñu leen ragal parce que nekk nañ loo xamante ne bi combat yi bakkan bi lañ ci teg. da ngeen def seen testament non yi ban ko defee mais ma voilà gis nga bërki démb dimanche la 5. ñëpp dégg na meeting bi amoon Kër Massar mais est-ce que gars ni ñu boucler woon Kër Massar ci terrain bi fi meeting bi waroon am est-ce que meeting bi am dimanche Pikine terrain CFA bëri na ay boy yu bëri yu demoon te ay patriote la dañ leen jënd jox leen xaalis bëri na si boy yu bëri yoo xam ne woo nañ ma def vidéo ni photo ak seen xaalis yi ñu leen jox di ko partager si internet yi. moo ngi ci biir léegi est-ce que foofu gis nañ fa benn force de l'ordre wala est-ce que gis ngeen fa oto waa bi ñu taxaw fa di sécuriser gisoo leen leen fa lan moo tax ñoom bu dee ñoom ñooy foon lan moo tax bi tension amee seen biir ñuy xeex ci ay mu xaalis ak yooyu noonu wala ay mu sama ministre mooy njëkk wax wala mooy njëkk a yéeg ci podium bi mais est-ce que loolu bu doon sécurité ñoom sécurité la bëgg kon jour boobu noonu ñu fa nekkoon di def affaire u saltel Euh, di xeex seen biir di damm siège kon su boobaa force de l'ordre bu ñëwee dañ leen di arrêté di nga dégg ay arrestation mais ba léegi fi may wax ak yow nii déggoo arrestation déggoo kenn kun fa jàpp te bu doon ne meeting bu waa yeewi askan bi la di nga dégg ay arrestation dañuy ñëw di tiir ay lacrymogène pour yàq événement bi. non non non non li ñu non li ñu wax non li ñu wax fu wóor lañ ko teg bu doon ne meeting yeewi askan wi la. mën naa waatal kon da ngay dégg lacrymogène yi di commencé di jóg te bu jógee mooy dañuy ñëw pour yàq suñu événement dima euh, Kër Massar moo gënoon doy waat fuuf moo ëpp mbooloo Kër Massar moo ëpp mbooloo fuuf mais gisoo fa benn sabotage lacrymogène jugul te la fa nekkoon ci nit mën na pikin bi quatre fois day Sali Diop Dieng muy jox confiance président Macky Sall ñun ak ñoom bokkuñu sax vitesse bokkuñu ñoom dañuy ñëw jël xaalis di jënd askan wi di yëkkati maire yi di yëkkati xale yi di leen jox ay 2000 ay 5000 mais am na vidéo yoo mboo ko xoolee ci biir internet bi sax dangay ngay tey ñu bëgg a assurer Macky Sall naan ko banlieue bi nooy na ba pare kooku li muy wax xoolu ci yàlla mag day wax dëgg parce que moom dalay leer ne bu génn wutoon xaalis ay moroomu ministre am génn xaalis te ñoom seen budget meeting bi il paraît que quatre-vingt-dix millions la ñuy wax. quatre-vingt-dix millions la ñu wax ci li ñu gis te boo demee sax dépassé na ko Macky Sall dañ lay wax ne la gis nga sa ministre yi nii dañuy def commerce si yow liñ lay wax gëmuñu ko xaalis bi nga leen di jox moo tax ñu lay ñu lay teg di la wax loo xamante ni bi dëgguwul ci ñoom. mais euh, bu ñu delloo foofu tuuti li ngay wax ay euh, Macky Sall ñu gëm. li ñuy li ñuy ñi wax gëmuñu ko mais après local yi li ngay wax nii loolu moo feeñ si local yi si résultat yi. waaw mais non am na loo xamante ne bi tey ma jox la si tuuti rek Mimi Touré bi nekkoon directrice campagne yu Benno Bokk Yaakaar seen tête moom tey xam na moom bu toogee rek tey gis nga yàlla attan na dem na ba génn seen biir moom tey bu fekkoon ni tey local yi dafa demoon loon boppam tey. législative yi dafa demaloon boppam kon dina gis résultat yi ni muy demee mais bu waxee digganteem ak yàlla xam ne élection yi benn Bokk Yaakaar gagné wu ko élection yi bu jaaroon ci yoon leer. non loolu la ñu gis. loolu la ñu gis bu jaaroon ci yoon majorité Assemblée national mën naa la waatal Yewwi Askan Wi ñoo koy jël mais du nekk si côté bu euh, benn Bokk Yaakaar. bu ñu dellusiwaatee ci procès beeg Adji Sarr euh, ndax tey gisoo leen ne comme que yàggoon na sàkku ñu amal euh, boobule procès euh, ba ñu yegg fii nga xam ne tey mën nañ ne jugement moo des dat dat rek la ñuy xaar est-ce que tey gënuloon logique mu dem mu dem ci procès boobu ñu xool naka la affaire yi di mujjee. waaw gis nga buur buur li ñu li ñu wax léegi rek gis nga am na loo xamante ne bii président Ousmane Sonko. moom mooy nday mbili gi hmm. ñoo ngi ko ciy déglu mu wax ñoo ngi ko ciy déglu mu wax parce que ñu dañ ko yaakaar ci politique moom lañu yaakaar ci politique fu mu ñu wax fii la toog leen déglu ma jóg leen dem leen fii dañuy dem appliquer loolu parce que mooy ci politique. mais est-ce que day tax ba ngeen am. parce que moom président Ousmane Sonko ku ko xam xam na ni doxul ci fitna. du nit ku yee fi ne du nit kuy taal réew bërki démb meeting bi amoon CFA wax naa si ba pare bëgguma si ñëwaat premier ministre en tant que premier ministre premier ministre Amadou Ba di taxaw di wax ak nit ñi naan leen ku leen wax ngeen xuri ko dégg ngeen ko wala déggoo leen ko Amadou Ba wax na ko. waaw mais est-ce que est-ce que est-ce que nit ñi après médiatiser na loolu. wax ci parce que wax boobu tamit en tant que premier ministre. non non est-ce que lu tontu euh, mais gis nga buur. kilifa am na fu muy toll du du kilifa premier ministre premier ministre du nekkul nomination bu ndaw du lu tuuti kon boo waxee est-ce que du day tontu en tant que kilifa waroo tontu kon moom bu taxawee. ci meeting boobu nga xamante ne bi presque ay 46 personnes ñoo fa nekkoon. 46 mën nañu wax 46 personnes. non non non mën na non non du ka du yàq der parce que. non non du yàq der astel. non astel non. Ah. yéen xanaa xooloo leen meeting bi mais image bi. non mais am na nit mais am na nit mais yéen. mais maire yeeg booy bi ñuy dem yéen boobu meeting bi boobu kii jëlagul parole sax ministre bi jëlagul parole man mën naa leen. mën naa leen wax ne leen quarante six jàpp cinquante personnes ñoo fa nekkoon bëri wuñu te président Ousmane ko bi mu wootee Kër Massar nit ñi sept heures sept heures la ñu commencé dem sept heures non du question raaj jëmale sama kanam ñun dañuy wax gis nga xoolal sept heures mhm. dimanche bi sept heures nit ñi fa lañ commencé yi dem sept heures ba vingt deux heures juma moo ngi nii bokk na si patriote yi nga xamante ne bii nii presque ñoom ñoo fa mujj man mi tamit noonu te kenn fayu ko kenn fayu ma kenn fayu yeneen sénégalais yi kenn fayu ñu. maa ngi maa ngi wax benn affaire bërki démb tonton Abass Fall maa ngi koy nuyu di nuyu leader yëpp ak responsable yi bërki démb maa ngi koy déglu muy wax wax bu am solo. nee euh, na fi mu toll nii Sénégal président Ousmane Sonko sénégalais la ci réew mi la dëkk am fi njaboot saa bu amee rendez-vous tribunal gars yi ni ñu fay wàccee force de l'ordre yi ak waa bi bi ñuy wàccee si biir cité bi loolu dafay jeex. parce que loolu dinañ dinañ ko dinañ ci volontaire wu ba loolu mm. dafay jeex. may ma waaw de waaw mais. waaw mais ah, dispositif boobu. dama leen bëgg wax ne leen loolu mbiru yàlla suñu borom la yàlla mooy def loolu si doomu aadama mais tey buñ ko woowee da ngay gis ku bàyyi liggéeyam ku bàyyi liggéeyam. am na koo xam sax da doon voyage mais day bàyyi voyage bi muy def pour ñëw wuy si président Ousmane Sonko loolu yàlla moo koy def nan ka nangu mais loolu dafay jeex te gis nga ñun jeunesse bi dinañ taxaw xeex loolu saa bu amatee rendez-vous tribunal te sax du rendez-vous yëpp lay dem am na si convocation yoo xamante ne bii ñun dañ ko ñàkkal fayda convocation yi ñàkk fayda yi ñun duñ ko mës a bàyyi te saa buñ toogee ne duñ ko bàyyi mu dem da koy appliquer du dem parce que dafay déglu peuple am dafay déglu ay ndaw réewam parce que projet la moom la ñu teg jiital ko mu koy doxal te incha allah sénégalais yi des fois nga dégg ñu naan ah ñu ne dañuy xaw a tiit ndax président Ousmane soo ko ce que dina bokk moom ci boppam wax na ko nee na ku dul yàlla suñu borom amul kenn ku koy tere dem élection te moom ñoo ngi ci ginnaawam te ñu jàpp nañ suñu suñu confiance dina dina dem élection. ngeen condamné woo ko ci affaire euh, procès procès Mame Mbaye Niang wala procès ñaari procès yi suñ kanam de non instant moom ak loo mënti wax ak loo mënti wax am na benn incertitude bi plané ci candidature Ousmane Sonko présidentielle 2024 ak loo mënti wax nag. buñ jàllee nag procès yi peut-être bu jàllee procès yi nag ñu kii ko ndax dem ndax tam mën nañ dem procès ñu bañ nga toppee dara ñu seetal ko boobaa it xam ne mais euh, safaan boobu amee it euh, candidature dina tax suuf. mais dama la bëgg wax ne la. am na loo xamante ne bii. Eh, yéen yéenay xalaat loolu waaye yéenay wax loolu mais ñun ñun patriotes yi nekk ay sénégalais bëgg dëkk bi stable changement am te kenn lañ ci yaakaar muy président Ousmane Sonko ñun xam na ni président Ousmane Sonko day dem élection day dem élection gis ñu lu koy téye te nin koy gunge nii ci événement yi noonu lañ koy continuer di gungee incha allah mille vingt 2024 yi jox ko réew mi gunge ko pale parce que li mu ñu wax dafa dugg suñu bopp te lii li nekk suñu bopp yi amul gisuñu ku ko mën dindi man sumay famille dañuy wax dañuy wax des fois ñu gis ma vidéo may circuler si internet bi ñu ne ma yow comme xale wala yow lii lii nag nag lii lan moo la jara jaral mm-hmm. mais man bañu ma ko kon compte nan ma condamné nan ma compte nan ma def lépp mais man li ma décidé décidé naa ko ba pare <laughs> waaw <laughs> <laughs> ah. merci beaucoup di nuyu tamit euh, sama grand Moustapha Diop maire HLM cinq maa ngi suñu grand démb recevoir nañu audience waxtaan ak ñun parce que dañu nekk si préparation pour dem euh, Mbacké ci meeting bi démb toog nañ ak moom wax dëgg yàlla jàppale nañu ñoo ngi koy sant tamit di ko gërëm di nuyu cabinet bi yëpp di nuyu maire bi. fa nuyu ñoom ñëpp di nuyu tamit euh, sama mag bi nga xamante ne moom mooy euh, madame euh, Salimata Sène kooku responsable bu mag Pastef HLM 5 kooku tamit franchement sama jigéen la moom mooy responsable jigéenu Pastef HLM 5 moom tamit kilifa la ci biir Pastef maa ngi koy nuyu au passage tamit di wax sama copain bi Dioum moom tamit sonn trop moom moom wax dëgg yàlla patriote bu mag la mais des day <laughs> um xaw um e a day xaw a signaler gauche jàddu waaw parce que moom des fois day xaw a am lu may calculer mais wax yi may wax nii juma mi moom ko dàq fuuf moom moo ëpp niveau bi fuuf ak yeneen patriotes yi mais am na loo xamante ne bi boo ci nekkee rek nekk ci biir combat bi rek doo ci bëgg a fës man nag moom maa ngi fépp quoi moo tax man maa ngi moucher écran damay ñëw toog wax sama li ma saf te maa ngi wax Benno Bokk Yaakaar maa ngi déglu maa ngi déglu Moustapha Diakhaté moom soxlawul Ousmane Sonko président Ousmane Sonko soxlawul ay conseil boo amee ay conseil na dem këram toog conseil njabootam ak ay soxnaam Moustapha Diakhaté bërki démb li ngay wax yëpp ñoo ngi koy dégg mais daal dañ la wax ne la da nga moytu sa bopp loolu laa loolu lañ lay wax na nga moytu sa bopp wax ji bëri na trop temps yi sa côté merci beaucoup. Euh, ñu ngi jaajëfal euh, kon Dieng Pastef mi nga xam ne moom la ñu dalaloon. si ñaareelu pàcc yor yoru Sene Info di la jaajëfal sa disponibilité ak nga àndal euh, Asel ma jox la kàddu gi rek kon <laughs> nga tëj. jërëjëf Bour Sine Dieng bu Pastef ñu ngi jaajëfal bu baax a baax waxtaan bi am na solo di nuyu waale tamit ku mu àndal juma di nuyu tamit suñu caméraman bi ñu ngi leen di jaajëfal yéen a a ngi woon si seen yor-yor Sene Info di leen jox dig daje ëllëg jërë ngeen jëf.